ayca ah waa école bi ñoo seet si waa télé bi waa école bi ñoo seet si waa télé bi macha allah télé bi journée mondiale des droits des femmes. mais les femmes ont tous pris les droits xëy na dañu ci war a yokk sax reconnaissance parce que li ngay reconnaître mooy li nga am na parce que yow noonu nga ko parce que les femmes on les met. ñooy suñu yaay ñooy suñu soxna ñooy suñu ñooy suñu jigéen ñooy suñu dal yàlla dañ ko wóolu pour dëkk moom maanaam li yàlla wax jëppoo jëppoo bi yàlla di joxe ci jigéen la koy jaar kon donc jigéen ah yàlla xam na ko jox na ko joxe l'islam ba mu ñëwee nag ak yéen sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen a tey jii droit bu nit war a mun xalaat rek jigéen am kon da leen ñaanal seen bis bi tey bi nga xam ne bokk na ci 365 jours yëpp ngeen fekk at yu bëri jigéen bu nekk fu mu nekk rek dëgg ko tax yàlla jubóole ak seen liggéeykaay yàlla boole ak seen njaboot ñi ñuy fay ñi ñuy fay yàlla yàlla ay ay yàlla jël नाही

gis nag ñooy équipe euh, Kër Maam Maxtaar ñëw section télé bi mu nekk ñaari entreprise macha allah euh, télé bi ak école bi voilà.